filamuruba cɛmusasu cɛmusalimako jɔnmadugu alamadugu tɛ laturu sanukɔrɔ kaw ci k'a maɲini ka sɛnɛgali ekipe nasionali ka kulu dimɔni ko ni sɛnɛgali bɛ gaɲɛ laturu ko bange ɲako ndakɔrɔ kali sɛnɛgali yɛrɛ tɛna victoire sɔrɔ o tɛ gaɲɛ laturu ko bange ɲako ndakɔrɔ kali cɛma dogo cɛma sɔrɔ tiɲɛ kan dugu la usman dafa wax ne nee na dina ko am ay match nulam dina bëri. de commencé ci premier match am foofu noonu. premier match am match nul lay doon. tey commencé di ay xas ni ay nangam-nangam Ousmane mi ngi nii. Hmm? ngi nii mi ngi kon yéen ñi koy seetaan dafa leen bëgg a wax ni premier match Sénégal bi nga xam ne mi ngi koy fubal le un novembre à 16h contre pays ba Sénégal match nul la ciy jële hmm? dëggantaan. incha allah match bi. deuxième parce que deuxième match am mi ngi fi war a football ak bi nga xamante moom moo ko. sana jina jina ka haketo dola jina ka haketo koni jena jena ka hake to ne fila boka oyete basanti kungre wati kungre jama tigi kungre dana jota ani dana birisa mande ni wasunte kata ka dima de kungre sonsa fajigi mahanta jigi dunguru kinke gosa nyinga guju maa ngi ñaan leen ci barke ko Ibrahima Sissoko ñaan ma sama barke ne ci barke karama ko Ibrahima Sissoko lay ñaan ñi nga xam ne ñoo ñëw fii tey di ay ganam tey ñu ngi nii de Ibrahima Sissoko tàggu na leen de ay ganam ñu ngi lépp lu may wax fii ci kàddu Ibrahima Sissoko laa ko waxee de dana jotaani dana birisa kote ma suusu ani bate ma suusu man de ne wasulunte kata kadima kumre nit Ibrahima yaa ngi nii de. ñu ngi ngi fi nekk sunu sang. waa télé bi lay tàggu pour liggéey lépp luñ fi ñaan nag ci barke Ibrahima si soxol lañ ko ñaane Koungheul jugal nga taxaw ci sunuy mbir tàmbale ko ci karama ko Ibrahima si soxo milliards yi nga koy may million yi nga koy may li nga koy defal nga boole nga defal ñu ko ñun ñëpp ñii nga xam ne ñoo ñëw fii di yor télé bii am na lu ñu bëgg kungure yu li kaa de ñii ñëw fii tey ci Karamoxo Ibrahima Sissoko am na lu ñu bëgg seen àdduna de jugal nga dox ci seen mbir fu ñu mënti dem ci ñeenti coin yi ci àdduna bi jugal nga taxaw seen mbir gar ko soro daraja ko soro milliard ko soro million ko soro kata ka dema kortima sunsu ani bartema sunsu kure danga dinge koroba ote koroba de man dee mandeni wasulunte bii dumbe dumbe ba dumbe dumbe kongre jugal nga taxaw ci ñi ay nitu ibrahima lañ lépp lu ñu dugg ak fépp luñ fuñ dem lépp lu ñu bëgg dagul nga xeex loolu ba ñu am ko ci barke karama ko ibrahima si soxo garji ko soro milliard ko soro immeuble ko soro daraja ko soro bayra ko soro kata ka dema sankuma ni bankuma dana jote dana birisa amandeni wasulunte tagu nañ la de kongre yen ñi fi nekk son san ma fa jigi duuru keñenke go sa ñinin ka jugu yéen tàggu nañ leen de ci barke karamo Ibrahima soxo ñi ngi tàmbali nag dañoo ñëw pour yëgal la ko kongre film bi ñu leen filmé di du yabeel du dara de du yabeel du dara de waaye nag ku ñëw ci kër boo fëggee bunt bi buñ la waxul entrée mënoo dugg te yéen a nekk fii tàggul naa leen nag ci barke Karamoko Ibrahima Sissoko Dansokho Iniko takurani basi dulu kakadima cheo che muso muso karama so karama kanyama ni tamsi jalo simbo iniko dansoko ni ibrahima karama ko togola iniko dansoko ni trofe bela ni usay kaltur ni kasim fe ni bamba jigi ñu ngi ñëw tey di tuur seen kàddu seen bëgg-bëgg ak seen di leen tàggu ci li nga xam ne moo tax a jóg ak ñi ñëw ñi fii ngir liggéey ak ñun ci liggéey bi ñu nekk nii am ndigal moo tax ñu toog fii waaye ñu ngi jégalu ci kawe gu ñu kawe seen kaw di ñaan seen doole ak seen kàttan ci li nga xam ne la bëggu tey ci pouvoir bi tax ñu ñëw fii nii ak doole bi tax ñu ñëw fii nii am ngeen ko mën ngeen ko sañ ngeen ko ci darajay tuur yi nga xam ne ñu ngi àdduna bépp ci darajay bagage yi nekk ci biir Mali itali kono France kono Espagne kono Belgique kono Amérique kono Espagne kono Océanie kono nii tous les donso ñëpp xam nañ li nga xam ne moo ñu tax a jóg ci li ñu bëgg it incha allah ci kàttanu yàlla ñu ngi leen ñaan seen kàttan seen doole ñi fi ñëw ni tey ba gën a bu ñu fi ñëwaat tey ñu yor seen yëfi bopp am seen alalu bopp seen doole bopp ñëw liggéey fii ak ñun li nga xamante ni moo tax ñëw fii tey kii suñu kilifa di suñu njiit Ibrahima Sissokho li nga xam ne moom la bëgg moom ci wàllu tour bi nga xam ne moom la bëgg moom pouvoir bi jóg ci kaw incha allah ci kàttane àla kulale ñu ngi leen koy ñaan am ngeen ko doole bi sañ ngeen ko mën ngeen ko jóguñu nag ngir def leen lu ko bon jóguñu ngir wax nit leen lu bon ci li ñu am ci li ñuy liggéey ci suñu wàllu tour ci ne am tour doonu jëf joo xam ne jëf ju bon moo ko tax a jóg defuñ ci leen lu bon ngir liggéey dopp doomu adama yi ngir liggéey ñëw am pouvoir moo ñu tax a jóg ci kàttane yàlla daan soxla ni ko san gi nafolo tigi jama tigi gi tigi ini ko i dan sogo ni trophy bala ni usayi kaltu kanti manat i dan sogo ni bilala si sogo kasim fe saylan ka bone i dan sogo a ah, kasim ñu ngi lay balu di tuub ngir li nga xam ñu ngi ñëw di ñuy waxtu tuub sa tuub di sa doole sa kattan sa parfum mu ngi nii nii parfum day xeeñee di am doole laa bëgg lépp ci àdduna ci góor ci jigéen ci bayra góor bayra jigéen wala ci sa góor wala sa jigéen ci ñi nga xam ne si ñu ngi ñëw fii nii ci jarbaat yi Ibrahima si Soxo ñi nga xam ne ñëw fii seen wërsëg seen bayra lépp na dox àdduna leen déggoon nga ba fi ñu nekk ñoom di liggéey foofu ni leen ñëpp dégg bañ dirigé fépp fii ci Thiès li ko dalee fii ci Thiès ba dakaar ba Amérique ba Espagne ba Argentine fépp nañ leen dégg àdduna wëngal képp nañ xam ne si nii Ibrahima si Soxo teg na ay jarbaatam loxo te ndam bu ñu bëgg ba tax yaakaar bi ñu am ñëw fii nii nañ ko am si yàlla nañ am ndam bi ak puissance bi pouvoir bu yaatu yaatu ci kàttan yàlla incha allah ala kulli yi ñu leen koy ñaan ci darajay yàlla ci barke Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. daan soxla ko daan soxla. arabiya ko dana jota andana bisa don ka ni baara sensɛn ko ani ɲɛbɔ ko jura muru kumala ka tanba donna kɛlɛ jelibula kɔntɔ kurulɔ jɛba ni kuru jɛnsɛnba kɔtɛma sunsun ni batɛma sunsun kɔrɔnɔ kafa ni bɔrɔnɔ kafa kafara jɔnɔ kafara hali bisa saran tɛ juru fɛ yɔrɔ dɔ saran yɔrɔ kanu bara fɛn faga ma kɛ jɛfafɛn ye dɛ ne ma yɔrɔ ye ma ka a ye baga ne yɔrɔ ye ka yɔrɔ kanu ka bonya mbake fara wolofa bɛrɛ dɔ awa jakite ka fara wolofa bɛrɛ dɔ musa sisɔgɔ dɛ kɛ fara jɔnɔ ka fara barafin kɔbara sirimanfinɔ mba kɛ fara jɔnɔ kɛ fara haribi na ɲuman damadɔ kɛ fara seba kɔrɔnɔ kɛ fara na ɲuman damadɔ dɛ kɛ fara jɔnɔ kɛ fara haribisa musa kumaba dɔ kɛ fara jɔnɔ kɛ fara musa dɔgɔmani na ginɛ kɔnɔ ke faraŋolu samake do ke fara maru maru keta ro ŋolo samake koni kanu bora feŋ faga ma jifa de mba ke fara jonari bisa a a ke dogo ke din kanu ko do hadi bi no de maru ye no de hadi bi ŋolo samake e, ani amadu samake e. bara dumbiya abdulayi dumbiya baga gasama a bɛɛ tɔgɔ bɛ yan a bɛɛ ka foli bɛ yan fira ba dana juta hani dana bisa ko kuno bala ali folo kuno bala ke fara jono ke fara jotumu sur ban toro ba fira ke fara jono ke fara nana ko armanu re ni betere ke kunde ko lamba fira ba na fodi ma ko fira ke sira ka ko do gla alaji filɛ ka ta ka ma a tigi kɔrɔ su tɔgɔrɔ ka da ma a tigi kɔrɔ ɲama tɔgɔrɔ dana juta ani dana birisa sɔnji ye ka ta ka ma ne ma bɔ ka yira k'a fɔ hali ne ye na so dɛ ne ma taa television na fiyewu alaji filɛ ka ka da ma ma ɲininka jugu ju ka ta ka ma jata ni siri ma boli. gwasa juba ni dabe mbɔ alaji ka ta ka ma ne ma bɔ television na ne ye na so wa fira k'a tigi kɔrɔ su bɛ. hali bi ka i ma barikada ka i ɲɛnama bɛɛ lajɛlen ma barikada dana tɔn dana birisa kɔ kunɔ bala nin fɔlɔ kunɔ bala ba ko fɔli ye kɔmɔ kɔ mandiri wasolon kɔnɔ fɔli karaka kɔ n'a ka sɔrɔ ne ka ta tele kɛrɛ ka taa n misiri kɔnɔ ko ye selila fira a ka woro a ka ji filɛ ka ta ka da ma dɛ aa ne ma taa n tele kɛrɛ nɔ fiyewu ko ne donnen mɔgɔya misiri dɔ ma kɛ fiyewu ne ma karamɔgɔ su ma karamɔgɔ ɲɛnama janfa ma karamɔgɔ muso ɲini ma den ɲini ne ma ba karamɔgɔ ci ka ma tile kelen karamɔgɔ ba ka ji filɛ ka ta k'a da ma vira dana juta birisa dɔn nin farakara sɛsɛ ko juro ani ɲabɔ jura n karamɔgɔ ka ji filɛ k'a da ma karamɔgɔ ba bilen bara fɛn faga ma kɛ jifa fɛn dɛ n bamuru kumaraka tanba dunna kira jere bɔra kɔntɔ kurɔrɔ jabani kuru jɛsɛnba n ba kɔtɛma sunsun ni batɛma sunsun n karamɔgɔ ba bilen ko jiyaji ye ka ta k'a da ma nin kɛra kɛ filifɛn karamɔgɔ ye bolo hali ko ne bolo fila in kɔ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ne ma a ta fiyewu ka don misiri kɔnɔ ko n seli ne ma a ta tile kelen ko n karamɔgɔ muso ɲini o ma kɛ kelen fiyewu n ba santigi musokɔrɔ ani waritigi musokɔrɔ santigi duga ni waritigi duga. dana tan tana birisa don ka fara kala sɛnsɛn ko jura ɲɛbɔ ko jura dabali bana soro ka fara bafin kɔba sirimanfinɔ ka fara ka fara mɔru geta rɔ tanga tɛmɛ ka fara jɔnɔ ka fara mɔri geta rɔ hari bisa santi kungure ni wati kungure ka fara jɔnɔ ka fara ngolo samakɛ dɔ samakɛ de ya ngolo samakɛ ye ka fara ngolo samakɛ dɔ mbafa kuli jamanja kuli lunguru kenyake ininga jugu jula gwasa jubani gwasa dawyombo kafara jono ari bi kafara gwasa tigi morodo kafara koco tigi morodo fira ay son filɛ ji de ka ta k'a da ma ne tɛ yɛrɛ dɛ ne tɛ yɛrɛ dɛ ne karamɔgɔ ye so ka fira feere ma bɔ nɔgɔrɔ muso tɛ bolo denti bolo cɛ tɛ fɛ muso tɛ fɛ e kɛla kunnagora jon dɔ ye dɛ fira furukun tɛ ka kɛ kunnagora jon dɔ ye fira ani ko a dan sɔgɔ ɔ a ye ne bara yan bi ne ma wa mɔgɔ lateli la ne nɔ san tan ani fila kɛ sɛnɛgali kɔnɔ ma se mɔgɔ la televizɔn na a sera n bara yan k'a bɛ fɛ ka ɲininka ko ne nɔ mɔgɔ ye ne ko ne karamɔgɔ ye so kira na karamɔgɔ ye so ne ma karamɔgɔ janfa ma ka karamɔgɔ muso ɲini fiyewu n'o ka kɛ tuɲa kan n'a sɔrɔla ne ka karamɔgɔ janfa tile kelen ka karamɔgɔ janfa wala ka karamɔgɔ muso ɲini fida o tuma n'o kɛra mun sigilen ka ne ma ɲininka televisiɔn mɔgɔw n'o ka kɛ tuɲa kan fida ni emisiyɔn balen kɔfɛ a ka kɛ ne sata ne ba tɔgɔ hawa jakite ne fa tɔgɔ de musa sisɔgɔ han a dan sɔganin ko ole televiziyɔn mɔgɔ min nana wuli ka ne sɛgɛrɛ a ka hɛrɛ k'u ye su kɔnɔ ka hɛrɛ k'u ye tile kɔnɔ ka baden k'u ye su kɔnɔ ka baden k'u ye tile kɔnɔ gɛri ye mali kɔnɔ ka gɛri ban pewu gɛri nin ka ban mali kɔnɔ gɛri min ye farafinna kɔnɔ gɛri ka ban afirika ka don da fɛ ka bɔ da kelen fɛ farafinna ka don da fɛ ka bɔ da fɛ hali dan nin ko dana jɔn dana birisa. mooy lu ma kon dañ tey ñu gis ko ci kanamu écran yi moom ki nga xamante ni wax dëgg yàlla ñu bëri voix buñ ko déggee dinañ ko xam waaye jëmm ji lañ mës a gis ndax ay audioom euh, yi nga xamante ni daan na ci daan na ci jàngale xam-xam lu ci bëri ci wàllum ramlu sénégalais yu bari jot nañ ci borom xam yu bëri jot nañ ci ñu bëri jàngal na leen indirectement à travers de audios yoo xamante ni doon na ko envoyé ci Sénégal Mali ba ci naar dëkku naar yi am na ñoo xamante ne jotoon nañu ay audiom muy Ibrahima soxo ñu bari xamee ko ci ko balaa boobu rek dañ koy bàyyi mu nuyu meeg moo ko balaa moo nuyoo tey nag dañ koo seet indil ko benn surprise surprise bi nag mooy lan dinañ ko indi wax mu seet tey en direct ci wàllu ramlu Sénégal gisuma ci moroomam wax dëgg yàlla wàllu ramlu lay liggéeyee dinañ ko wax mu seet en direct trois match Sénégal yi nga xamante ne moom lay joué match de poule yi mu seet ko en direct wax ñu match yi nan lay demee benn bu nekk dinañ koy bàyyi nag mu nuyu meek entraîneur yi nga xam ñoom ñoo koy seetaan tons bismillah euh, monsieur Lamine vraiment je suis parfaitement content sur ça. t'as bien compris euh, loolu amul benn problème incha allah set bi ngeen di laajte ne fu mu toll nii dina toog ma seetal leen wax li nga xamante ne nii euh, dina am incha allah rabbi parce que man du rajo du télé parce que képp kuy seet nii ni fu mu toll nii dina xam ne nii jëmu ji mosul génn télé. est-ce que mooy comprendre nga de même mbir yu bëri yoo xamante ci wàllu football xam nañ match comprendre nga bu baax de ankay ah, déggantaan billahi loolu musul dem du dañ ko ci àdduna est-ce nga de donc euh, wax baa nga foofu noonu donc euh, question bi nga posé nii du question man maa mën est-ce que nga de donc dinaa ko nii ci sama suuf si ci ramlo bi nii xam na ni ramlokat yu bëri yoo xamante ne sama loxo lañuy jaar nii xam na ni ak nit ñoo xamante ne ñoom ñëpp jaar ci sama loxo nii maa leen jàngal ramlo est ce que may comprendre nga tudduma turu kenn nii fu mu toll nii est ce que may comprendre nga. bu yàggee nag dina laaj nga tudd tur. waaw loolu je ne forcé pour ça bon loolu. je ne suis pas forcé loolu kenn du ma forcé ci yooyu noonu est-ce que may nga de mais question bi ngay posé ni fu mu toll nii question bu leer la parce que. mun naa laa ci tontu tontu boo xamante ne ni kerew eh, ki nga xamante ne ni moom mu jàngal mi ngi fi Dakar. waaye Tos balaa ñuy balaa ñuy jël ko ndànk ndax c'est la première fois ndeysaan ñu koy teel taalal micro c'est la première fois caméra di ko tiim mi ngi noonu nangul génn ba ba mu jugee eh, Mali ba ñëw Sénégal ba léegi nanguwul génn ci média toppale nañ ko boor bu nekk. boobu ba léegi nag doon na bañ ko ba mu demee ba sës la demandé ay permission ay waajuram ay ay ay ay ay sëriñam bokk du moins mu baal ma ci ay sëriñam ay kilifaam laaj na leen permission laaj na permission yi nga xamante moom lay liggéeyandool bañ jox ko permission waaye balaa boobu dañoo gis avant ngay commencé nga toog mel ni da ngay tàggat mel ni da ngay tàggu di laaj permission sa gaay sa am nañu ñaar ci sa ay taalibe yu toog laajal la permission loolu pour lan la que xam nga ramblo bi nii parce que li may jàngal ne parce que ñu bëri dañoo foog nii du question man soxla am na ñoo xamante ne ni fu mu toll nii bu ñu ma gis nii fu mu toll dinañ wax ni ñu ne waa ji ah man jaar naa moom fajul sama soxla. loolu am na fi ma parce que nit day gore. mais loolu bariwul de. gis may comprendre nga de benn bon boo gisee mu jox ko la kàddu ci ñaar yooyu noonu parce su ma bëggoon ni ranu leen bu ma dëkk nii fu mu toll nii ñëpp ñu mobiliser nii mais émission bi jaru ko parce que musuma jaar télé musuma jaar feneen est-ce que may comprendre nga donc keneen ki fi njëkk a toog nii fi la dëkk nii macha allah tubaarikala yaayam ku baax la baayam ku baax la. est-ce que moo njëkk a toog fii nii ak Tamsir bi toog nii nii fu mu toll nii man eh, man amatuma taalibe awuma taalibe mooy. Euh, ñi may gis nii euh, dinañ foog ni ñu ne ah Ibrahima Taji ni dafa génne télé wala ñu ngi koy gis nii te mosu ko def samay comprendre dina leen joom yi carrément mais ñi ma xamul fii nii bëriwul parce que dama yoroon commande la dara samay comprendre di ci jàngale ay affaire yooyu noonu comprendre de. lan nga daan ci daara nii nii mooy suuf si nii. moom laa doon jàngale isa may comprendre nga de jàngale naa ko nii fekk ñu yor nii ay 15 maa ngi jégalu ci sama mbokk du question ragal la. waaye boobu dama cee bëggoon dikk sama question la. ramlu Sénégal dañoo xamee ni ñu bëri bu dee ñi daan ramlu fii Sénégal dañ naan quinze la 15 15 15 buntu la waaye yow nga dikk. jóge fa nga jóge dikk na Ramlo du 15 16 la foo ko teg. Eh, eh, fi ma ko teg eh, Ramlo xam-xam bu bu la xam-xam bu xamante ne dafa leer donc euh, question bi nga ma posé ni Lamine question la question boo xamante ne dafa wóor est-ce que may comprendre bu wax de parce que Ramlo Seydina Jibril di boppam moo dindi c'est-à-dire barke Ramlo bi dafa wàccee ci Seydina Idriss. Issa Mbaye comprendre de ki ki nga xamante ni kooku la ñuy wax Idrissa Issa Mbaye comprendre nga de donc euh, nga xam ne ni Idrissa xanaa turam mun na kiwee ak sa turu papa mais du sa papa de comprendre nga bu baax de benn ñaar question bi ngay posé ni fu mu toll nii ci dëggantaan bu ma waxee foofu noonu billaahi wallaahi taala li may wax nii amul ku koy wetti amul amul amul déet isa may comprendre nga de bu la neexee olof. olof parce que sénégalais yu bëri olof lañ dégg. wax nii li ñuy yoroon nii fu mu toll nii ñoom dañoo jàng ci kii bi ci téere bi Sénégal dañoo jàng ci téere bi lépp nekkul ci téere bi. déedéet kon ramlu liñ bind ci li sénégalais di jàngee ci téere bi yaakaar mi ngi ci téere bi kon ramlu lépp lépp mbóot yëpp nekkul ci téere. ok. kon yow fan nga jàngee ramlu. fi ma jàng ci Ramlo Mali laa ko jàngee itam ay comprendre nga de waaw sam papa na ko yàlla yërëm kàr yoo àjjana comprendre nga de donc euh, bu ma jàngee Ramlo ak sam papa itam ay nga balaa muy dee boobu noonu presque man mën wax ni xale la benn ñaar. li ma wax ni fu mu toll nii kenn man nekkuma tere de maa ngi sama biir nekk bi de. Mhm. sama biir nekk bi de dama bëgg mu leer de. est-ce que may ma mën a fii nii fu mu toll nii dama koy leeral bu mu leer. est-ce que yaa may comprendre parce que li may wax nii fu mu toll nii saa waay nekkul den de dina de du du de. Mhm. est-ce yaa may comprendre de. ah déedéet du même boo ko xamul sax nekkul dinañ de. est-ce que may comprendre de aram loo fu ma koo jëndee jënd fu ma koo jàngee jànge naa ko ci dëkk bi foofu noonu ba pare def ma formation boo xamante ne ki ma ki ma jàngal ñenn heure bii nii mi ngi fi Dakar est-ce que may comprendre nga maa ngi ko sant maa ngi ko ji maa koy gërëm may comprendre nga de jàngal ma eh, ki eh, garab est-ce que ma comprendre de comprendre ma bu baax de ba pare woon ma boo defee lii ak lii ak lii parce que bu ñuy wax ni fu mu toll nii lii lii lay def lii lay def te yow wanoo kenn preuve est ma comprendre de mm-hmm. oh. donc dama bëgg parce que ñi ma ñi ñi ñi war a xool biir dañu foog ni Ibrahima dafa dem télévision man musuma dem télé mm-hmm. musula est-ce que may comprendre on oh, boo nee tey jii nii par exemple kii Youssoufa ngi ni nekku baakan la mm-hmm. est-ce que may comprendre eh, ñun bambara yi ñu leen ko Sédhiou Cheikh May comprendre nga de on ñi ñi ñi ñi ko kii ni ci téere bi ñi ko jàng ci téere bi ñu naan Youssouf Cheikh May comprendre nga de. kon différence am na ci li nga xamante ne mooy ramlu bi am dëgg-dëgg. ak ramlu bi nga xam ne moom lañ bind ci téere bi. ndax ki bind téere bi tamit daf koo jàng rek ñëw bind ko. waaw kii jàng ci téere bi fenul Cheikh May comprendre bu wax de kii bind ci téere bi fenul mais ki nga xamante ne ni ma jox la benn exemple. ki nga xamante ne nii moo nekk eh, ci eh, téere bi ci téere bi la jàng foofu noonu itam may comprendre nga de donc doom bu ci nekk nii dina am ay sar alxuraan bu mu ànd benn ñaar ki nga xamante ne nii c'est-à-dire par exemple boo amee sa eh, apprenti yow nga nekk chauffeur taji nii apprenti bi nga xamante nii moo doon ànd ak yow ni ci oto bi ku pan fu lu lu pan ci oto bi ni apprenti bi dina xam ne fii moo pan mécanicien sax bi nga ne woon ni bu ñëwee apprenti bi dina xam ne ni lii moo pan ci oto bi ak nga xamante ne danga koo jàngale ci téere bi ni bokkul leen c'est-à-dire yow dangaa jaar ci oto école jël sa permi ak nga xamante ne nii moo doon ànd ak chauffeur bi bu keroog muy jël permis xamul leen seen xam-xam bokkul Cheikh May comprendre yow danga jóge Mali ma leeral ko jàng ramlu jàng suuf jàng leneen ak leneen yeneen yi yeneen yi dinañ ci dikk waaye nga ñëw Sénégal fekk ñuy ramloo 15 doom nga leen seen ramlu nangul naa leen ko 15 doom la waaye man maa indi 16 bi ne 16 doom la teg loo xamante ni ñu bëri nangoon nañ leen ko nga def ay audio Sénégal gi yëpp jot ci ñu bëri jot ci ba ajo yi am fu mu la yóbbuwoon. Euh, Lamine loolu man daxuma leen. j'ai pas chassé quiconque daf ma leen mais ma xam ne ni ramlo bi nii eh, bëri woon na sax moo ëppoon xaaral ma yëkkati kàddu bi tuuti. comprendre nga de ramlo bi dafa dafa ramlo baa ngi nii. comprendre nga de ëpp na seize sax sën na Jibril ramlo bi ci kan la wàccee. incha allah comprendre nga parce que boo laajtee question boobu noonu ma tontu la tontu bu xamante bi billaahi kenn du ko weddi uh-huh, uh-huh. amul parce que pour lan tu question maa mokk wala maa mën incha allah nga de ñi ma mën am nañu fopp nga xamante ne moom ñoo ma dakk am nañ fii karamoo baab la am na benn. incha allah uh-huh. comprendre nga de donc ñaar am na man xale musuma jàngal. monsieur Mbaye comprendre nga bu baax de ñu ma doon jàngal ci yaramloo bi karamoo karamo bambale daf ma jàngal ba pare mu ne ma demal ci bërëb sàngam ak sàngam sàngam sàngam nga dem jàngali foofu noonu monsieur Mbaye nga de waaw. nga amee ñaata at nga commencé jàngale ramlu bi. bu may dugg ci école comprendre nga de donc man tudduma kenn foofu noonu bu may dugg ci école génn ci école bi. ñun Ramlo bi nii li nga koy defe nii sunu dëkk donc nga xam ne nii ñi nga xamante ne nii mi ngi ci senegal fii nii dégg nañu olof dañuy toj leket defar sa leket ci Ramlo bii nii mooy toj lekkat comprend nga bu baax de benn ñaar euh, boo ki lay jàngale Ramlo bu la jàngalee ba pare parce que question bi ngay posé la moo tax bu ñu lay defar boobu noonu 16 pas. dinañ génne dem toj yóbbaale ay guro ay leket ay béy ak ginaar foofu la ñuy wax nii dañoo toj sa sa eh, eh, eh, bi du doon ci biir kër gi de ci àll lay doon. itam may comprendre nga de donc nga xam ne ni li may wax nii fu mu toll parce que ramblo dafa am ñaari façon ramblo xam-xam bu wóor la xam-xam bi nga xamante ne ni dafa wàcce. donc ñi nga xamante ne ni eh, seen yoon ak yoon alxuraan bi ni bokkuñu parce que ramloo bi ni kan la wàcce ni mooy Seydina Idrissa dina Idrissa moom la wàccee et ci may comprendre nga donc am na ñoo xamante ne ni parce que doom boo gis ni fu mu toll nii dina ànd ak saar alxuraan boo xamante ne ni boo ko bindee boo seetal nit ñi fu mu toll nii moo tax man la 15 bi nii macha allah tubaarkalla maa ngi koy wax ci kaw ak kaw ak kaw ak kaw ak kaw wallahi loxo bi kenn du ko ci suuf parce que pour lan waxuma maa mën 15 boobu noonu bi nga laajte nii fu mu toll nii 15 bi déedéet isa may comprendre nga de mm-hmm. boo ci dolli benn mu doon 16. isa may comprendre nga parce que doom buy taxaw ci Ousmane il faut nga jurle ko ak doom bi nga xamante ne moo nag ci néegu mbàkkan ñun bombare ñu ne nii ni kene au début ku laban wolo donc ubbeekapement euh, lañu li ñuy waxe foofu noonu du dëgg de du dëgg comprendre nga lan moo tax du dëgg waxuma sunu ki euh, mbokk pël yi ak séeréer yi esa may comprendre ak euh, presque joolaa yi isa may comprendre nga ramloo rabu sax dañ ko def kuulu ko adama adama wamu trois bi comprendre de donc euh, dafa am loo xamante ne ni fu mu toll ni ci ramloo bi nii ras bu ko dul def ni bokkul isa may comprendre nga mais ci ramloo nii fu mu toll nii lan moo tax jitu mu bala bala safari bala kurumbali lan moo tax moom mu jël ci ci ci ci ci ndam am na lu ko waral isa may comprendre nga jiitu mu bala jiitu mu la dégg balaa laa tudd mi ngi tudd balaa jiitu mu mooy fu mu dëkk est-ce que may comprendre bu waatee donc wàccaa ngi foofu noonu jiitu mu bala bala sa dem na moom ci boppam est-ce que may balaa sa bali bu ñuy wax nii balaa dem na boo fu mu doon tomb ni ci xeer yi nii foofu noonu eh, loxom fay na foofu noonu xeer laa la waxee. jiitu bala. fii jitu mu balaa mooy balaa bi nga xamante ne ni fu mu toll nii remblo bi nii nekkul ay affaire yëfër donc sa question boobu noonu tamit dafa ma neex trop donc am na ay question euh, li ma lay tontu ci boobu noonu li nga xamante ne ni déggantaan la jitu mu balaa nekk na roi ci remblo bi nii roi cest à de ku kiliftife est-ce que may nga ñun ñuy bambara yi xaw ma arabisant yi parce que dañ ko def arab yi dañ ko def. wala rab yi dañuy ramlu. rab yi dañ ko waaw waaw yi dañuy ramlu lu leer. juif yi dañuy ramlu parce que ramlu dafa wàcce ci alxuraan comprendre nga de mm-hmm. par exemple tay jii nii su ñuy wax ni tay jii nii sunu maam. maanaam xeet yëpp ñooy ramlu. xeet yëpp amul kenn ci xeet yi fi ni koo xamante ne eh, xamu ramlu xeet ak lu mu mënta demee dina am ci kenn koo xam xamante ne ci ramlu xeet yëpp a ramlu. waaye ramlu bi dañoo gis ñu bari fii Sénégal ñu bëree bëri bari bari ci këyit lañ koy def ak big yow ñu gis nga jël ci suuf nga koy def yow lu ci bëri. <laughs> ci suuf bi nii man dama ko jëlee ci sama maam njiitu mu bala te ba pare wax kay <laughs> question baa ngi foofu na question bu xamante ne nii dafa am solo trop. SMA yi comprendre nga de parce que ñi nga xamante ne nii defuñu dañ koo def ci eh, kayit nii fu mu toll nii ñoom dañ koo jàng ci téere bi. kon ñiy def ci kayit mooy ñi jàng ci téere bi. ñi jàng ci téere bi kay waaw. mais suuf dafay am lu mu laaj pour nga mën ko cee def. ok mi ngi noonu suuf lu muy laaj foofu noonu ak ñi nga xamante ne nii ñoo ko jàng ci téere bi nii te xam-xam suuf si nii yëpp du téere bi déedéet. téere téere bi maanaam indiwul lépp loo xam ne mu ngi ci suuf si. téere bi dafa indi loo xamante ne nii nitee ko bindi est-ce que nga yow jinne moo la feñal ak yow mii yaa bindi téere ba boole ko ak nga xamante ne jinne moo ko feñal bokkul dëgg la du dëgg. la wax baa ngi foofu noonu. donc euh, ñi nga xamante ne nii du borom tere man leen di xas nii fu mu toll nii déedéet xasuma kenn. échec damay dikkaat ci ramlu bi. ramlu bi da nga ni da ni 16 doom la. waaye dañ la dañ la mës a gis lu ci bëri mm-hmm. nga tomb ñetti doom kase nga waxal ci nit ki loo xam ne du dañ te ñetti doom kase nga wax te nee nga 16 doom moo am ci ram te ñetti doom ngay tomb wax ci lu dul dañ. waaw euh, parce que boobu noonu euh, ci sunu cosaan dangay euh, nekk ci ramlo par exemple su ma wax ni Youssouf mooy ñëpp xam na ni Youssouf warul kenn. di nga ko wor falaa mu naa at baat na ci Yuusuf la wàcc benn te Yuusuf eh, moom warul kenn bon Yuusuf boo ko wëlbatu mu jox la Yunus Yuusuf Yunus seen tur yaakaar naa ni sorewul boo ko juree mu jox la Seydina Aliou moo nekkoon yaakaar dina islaam amul benn tombukat buy wet bii nii musuraam déedéet c'est-à-dire tombkat mooy ramlu. tombkat ramlu nga nekk ci yoon cest à ci xam-xam bu ñuul bi wala nga nekk ci alxuraan bi nii est-ce que nga de. ñaari laa boole ni fu mu toll nii. donc li may wax nii fu mu toll nii man musuma dem télé musuma dem rajo li may wax nii barki yaa kenn du ko dindi. waaye sëñ bi sëñ bi gannaaw bi nga xamante ni dangay ngay def ramlu suuf mooy tomb yi ngay wax léegi nii pour ku xamul luy tomb tomb mooy ramlu mooy suuf xam-xamu suuf mooy xam-xamu. yi nga xamante ni am na borom xam-xam ñu koy def ci këyit waaye dañoo gis ni dangay seet tamit ci loxo da ngay jël loxo nit ki jàng li ngay jàng rek wax ko tamit lu dul dañ. waaw boobu noonu foofu ngay xam nga e, ki nekk ci xam-xam suuf ni fu mu toll nii am na ay paa yoo xamante ne nii borom xam-xam yu bëri e, dañoo sangu suuf dee nañu dundatuñu. monsieur may comprendre nga de duñu tuñu dee nañu donc euh, boo paree ci ñoom loolu moo tax ma ne xale musuma jàng xale mun naa toog ak moom nii mu jàngale ma xam-xam comprendre de ma won ko tamit xam-xam est-ce que may comprendre de nit ki talal sa loxo fii nii fu mu toll nii day foog nii day fekk nii rambuloo ki eh, ci rawanu suuf si nii comprendre nga de wuusi na la da lay wuusi ci naka parce que am na ay mag ñoo xamante ne mën naa ci cité mm-hmm. comprendre nga de mm-hmm. benn jiitu mu bala esa may comprendre de donc balaa dafa doon wax ak euh, ak ak rawan suuf yi nii benn sama karamogo bable macha allah tubarikala esa may comprendre bu wax de benn a ngi foofu noonu beneen sa à ñoo dee nii fu mu toll nii moo tax question bi ngay laaj nii fu mu toll nii talal sa loxo ma xool foofu noonu lii ko waral nii fu mu toll nii damay njëkk a tàggu loolu ci suba lay doon bu ma xool bu ma bu ma bu ma xëy su ma xëyee ni fu mu toll nii ma xool sama bëccëg. ma xam ne nii. maanaam nga xool sa bëccëg mooy nga ram lu xool sa journée ni muy demee. voilà chaque jour da koy def loolu. chaque jour dama koy def ba xam ñaata nit ñoo may fekk sama kër ak lan mooy seen problème. ndax nit dina seet dina la seet si du waxagum problème am nga toog rek wax ko problème am yëpp ak li ko fi indi loolu maanaam sa bëccëg nga koy gis. loolu noonu nit yi ñu fi nekk nii fu mu toll nii man cees neex naa cees neexul musuma jël sama bagage dem fenn isa may comprendre nga de dinaa am chaque jour ay nit ñoo xamante ne dañuy dugg sama kër nii fu mu toll nii ñu ne seetal ma ma ne ko déet jaruma la seetal lii ak lii ak lii ak mooy sa problème. fekk gisoon nga ko avant muy ñëw ci suba si. Ah, kay parce que loolu la ñuy wax ni ci ramlo bi nii comprendre nga de loolu la ñuy wax ci ramlo bi nii bëccëg bëccëg mooy lan c'est-à-dire je regarde ma damay xool nii ba xam man est-ce que man jëmm ji si boppam est-ce que dinaa yéen yendu ci jàmm tay ji nii ñaata nit ñoo ma war a fekk ci tay ji nii ak lan mooy seen problème la ban problème lañ may indil sama kër waaw. waaye sëñ bi dañ laa mës a gis tamit benn jour nga toog nga wax ngay wax ci ramlu. nga wax ba ni ramlu yow mi koy def mën nga ci envoyé message kenn koo xamante ne mi ngi Mali bu du bu bu kooku bu xëyee euh, ramlu bëccëgam dina gis message bi nga xam ne envoyé nga ko ci ci suuf si. loolu am naa déggantaan parce que loolu mag ñi ñoo ko doon def loolu moo tax ma ne la xale musuma jàngal ci yooyu noonu seen kii bi nii ak fu mu mënta dem. est-ce que am na ay message yoo xamante ne nii dañ koo sanante ak képp kuy ramlukat ni fu mu toll nii. képp kuy ramlukat mën nga ko envoyer message. waaw waaw ci suuf si. déet boo fekkante ni parce que dafa am ramlukat yoo xamante ni daw nañu seen sëriñ. est may comprendre nga de. balaa sa jàngi bi di pare yow nga yàkkamti xaalis ay affaire yooyu noonu mais ki nga xamante ne nii jàng nañ ko dawul eh, kii sëriñam. benn ñaar musuñu bañ yóbbante sëriñam. ñett mu suñu doxan doomu sëriñ bi wala ak jabar sëriñ bi nii est-ce que may comprendre sëriñ bi nii bu laa teg ci yoon ni foofu noonu mun nga am ay lettre foofu noonu boobu noonu xam-xam boobu noonu billaay ak képp kuy ramblukat ni ak li may wax nii bu fekkente ne ni du fen naraw yow Lamine waaye waaye dafa eh, déedéet xaaral pare wu ma de <laughs> wu ma de leer laay wax ni fu mu toll nii di nga xamante ne du leen de est-ce que may comprendre ki nga xamante damay message ak sama karamxoo message soro fii nii dara mi ngi fii nii Dakar fii nii def may message ci ci bi ci la mooy mooy mooy mooy ramlo bi ecca may comprendre nga de donc ñi nga xamante ne ñoo ko def commerce nii commerce fu mu dugg de yàqu commerce fu mu jaar yàqu na ecca may comprendre am na sa diggante ak sa yenn taalibe yoo xam ne yow yaa leen jàngaloon pareeguñu sax ñu xam tuuti ci ramlu bi dem ba ba ba am na ñu ci gisoon télé ñu toog di wax di def ay yoo xamante ni sax danga naan danga naan lii nii euh, fu ñu ko jàngee te parewuñ sax seen jàng ci yow. am na ñu bëri ñoo xamante ne ni wax dëgg yàlla man Thiès yëpp xam nañ ko. parce que bii nii liñ ma gis ne ñu bëri dinañ joom dinañ xam ne ni que eh, Ibrahima musul génne télé musul dem rajo musul dem feneen est-ce que may comprendre nga man li ma. demal la Ramlo bii nii nii nii kenn duma ko fi wet xamul la billahi parce que pour lan dëggantaan laa fa wax samay ojo mi ngi fi jar mi ngi fi mm-hmm. est-ce que may comprendre nga. lan nga waxoon ci audio yi. li ma wax ci audio yi moom laa wax ni mën a ko nañu bay duul fen waaw. Mm-hmm. loolu wax na ko parce que lan par exemple tey nii et ku boo recevoir fu mu toll nii téeméer nit nii quatre-vingt dina lay wax nii kii gisuma de kii dafay dulle kii dafay dem nangam nangam nangam loolu c'est pas normal. Mm-hmm. c'est pas normal du tout. qu'on se dise la vérité et qu'on disloque mm-hmm. tu vois donc là euh, li question bi ngay posé foofu noonu wax dëgg fa yàlla j'ai enseigné bu jàngale na fii nii est-ce que may nga de ñi nga xamante ne nii. di ñuy nax ay doomu aadama nii fu mu toll nii di kenn dem ci ay ay ay télé kenn xamul est ce may comprendre nga donc man cest la première fois est ce que may comprendre du question kuy kii seetaan bi ni sax waxuma la sax xaalis wala sa nangam nangam de déedéet waxuma boobu noonu de est may comprendre nga nga xam dëgg bi may wax nii loolu mooy dëgg tombukat bu ko dëgg tamit dina xam ne ni carrément li may wax nii dëggantaan laa du dañ waaye am na ñoo xamante ni yaa ngi leen di fajal seen soxla à distance am na ñoo xamante ni bu ñu la woowee téléphone ne la dama bëgg dama bëgg xam dara ci man ngaram ramlul leen. waa loolu am na am naa ñu bëri euh, dañ may woo ni loolu man waxuma ko ci kii ci seen ñëw bi fii nii est-ce nga ñu bëri dinañ may soxla. yow mi Lamine ci boppam sax surtout jarbaat kese la lay xoolee esama musuma kenn musuma def lii billaay mm-hmm. esama yi comprendre nga nangul na la ko tay jii nii ñu bëri dinañ ma woo esama yi comprendre nga ñoo xamante ni nii nekkuñu Sénégal fii nii essaye tu as bien compris ce que je veux mm-hmm. seen soxla nii c'est-à-dire li wax foofu noonu nit loo mun ta def te ne lii sa waay lii man mënuma ko. mu ngi noonu comme ni mu leen ko waxee rek jarbaat la ma jàppee moo tax mu permettre ma émission bi muy pour la première fois ñu gis ko ci écran pour la première fois mu génn ci kanam di wax. ndax ay audioom rek la nit ñi daan dégg ay audioom am na ñoo xamante ni nekkuñ sax Sénégal mais audio yi mu daan wax di ci jàngale ci lañ jël ba commencé di ramlu seen bopp ba commencé di gis waaye buñ jugee ci wàllu ramlu dañuy digg ci wàllu fétiche. <laughs> Ah, aywa aywa <laughs> tam. <laughs> waaw <laughs> eh, di ñu ko may nag. loolu la ça ça c'est boobu cosaan la ci man parce que jaar na armée wax dëgg fa te la ñu ñàkk papa rek. Mhm. Mhm. waaw ah, mi ngi noonu émission émotion bi la waaye dañuy dikk tamit euh, comme que mënul wax ci fétiche yi buggu cee wax ndax xam na fi ko fi mu ko fi mu ko jëlee ak Lamine Lamine ñi nekk fii ci dëkk bi nee na féticheur la comprendre na laaj ay sarax bàkkan jàmbur mm-hmm. fétiche laaju ko rek billaahi wallahi billahi tallahi du li ko sénégalais yi yaakaar nekkul loolu mooy ay rey nit ay laaj la eh, xar fii nii laaj la lu ne fétiche musul laaj kenn xar laajal féticheur ñëpp yi dund waxuma senegal ci monde bi fétiche ban xar lay laajte xaar fan ban xar et j'ose me répéter en français le fétiche a du sang c'est pas le sang de mouton xaar c'est mouton mm-hmm. fétiche laajul mukk mu tomb pour sacrifice c'est faux. kon fétiche lan lay laaj sacrifice. fétiche lu muy laaj il peut demander comment la des euh, des chèvres là les trucs la des poulets des chèvres là kon xaar ça c'est pour les marabouts de Coran <laughs> c'est faux. c'est pas vrai c'est pas vrai fétiche qui demande comment dirais la donne-moi personne là à tuer là du dëgg de donc beneen sacrifice boo xamante ne nii xaw ma foo ko jëlee. kon yii nga denc nii tamit yii nga def nii nii fétiche la dëgg. dëggantaan boo xamante ne dama ko doon comprendre nga de waaw. bokkul ak yi nga jëlee ci Karamoko Babli. déedéet Karamoko eh, li ma jox ne bosom eh, nekkul fii Karamoko Babli bosom nekkul fii. kon yow tamit fétiche yi nga doon tàggu avant ngay def émission bi. Euh, peut-être bu ma doon tàggu ni fu mu toll nii man jullit la mel ni yëpp nii fu mu toll nii. dafa mel tamit fétiche yi am seeni tur ak lépp nga leen di tàggu day mel dañ lay dégg. waaw danga nga benn question euh, je ne t'ai pas encore donné la euh, joxuma la réponse bi nii nga ne am na peut bu ma karamɔgɔ Babli kii nii fu mu toll nii waaw loolu am na peut-être karamɔgɔ Babli bu mu laajee fii nii nekku fii nii ci man. comprendre nga de donc euh, wax baa ngi foofu noonu karamɔgɔ b'a bilen karamɔgɔ la karamɔgɔ bu xamante ne ramlo bi la ma njëkk gesul ak garab yi ren yi sunguf yi ak euh, ak leneen yi tu as bien donc euh, karamɔgɔ b'a ay affaire fétiche mun na takk fétiche mais pas bilen karamɔgɔ b'a bilen day juuli est nga parce que nit ñi li ñuy comprendre sa question bu dafa rafet dafa rafet parce que Euh, fétiche bu ñuy wax ni ne fu mu nii dafa am ñaari façon fétiche bu lay tere julli ak fétiche boo xamante ne boo ko yor mën nga julli di jaamu yàlla comprendre nga de. par exemple ma jëkk benn exemple nii di jéggalu mag ñi ñi dee ak ñi dund. parce que dafa am yenn yoo xamante ne loolu moo tax man bëgguma dem télé dugguma dem fenn monsieur may comprendre eh, donc euh, am na Kondron Ani Sané Kondron Kondron Sané beneen fétiche la boo xamante ne boo ko yor da ngay julli chaque ajuma nga def ko commande ñaari rak da ngay julli ñaari rak pour moom monsieur may comprendre de boobu am na monsieur may comprendre nga bu baax de war loolu am na. am na ay fëtër yoo xamante ne doo leen yor ba pare dem jàkkaar di julli ay affaire yooyu noonu mais nit ñi li ñuy comprendre fu mu toll nii mooy que ni boo yoree fëtër ni seen ma dañoo foog ni iblis la déedéet iblis liggéeyul dara ak fétis hmm. ay xarit lañu fétis ak iblis xarit lañu. Hmm. parce que ah waaw maa wax lii ne déggantaan ay xarit lañu iblis ak fétis xarit lañu. Guinée bu nekk ci fitini nekkul Iblis de Iblis moom ak yàlla sunu borom la woon donc lii nekk ci seytaane bu nekk ci yu bëri loolu moo trompé Sénégal nii fu mu toll nii. est-ce que na bu wax de donc nga xam na ni Guinée bu nekk ci fétiche nii nii ak Iblis ànduñu de mun nañuy xaritoo bokkuñu wax baa ngi foofu noonu. comprendre nga bu baax de oh léegi. ma xool ki nga xamante ne dina dindi wax ji nii ba xam dégg la. waaye ah, waaw. ma dikk ci sama question dafa mel ni da. loo xamante ne du denc. bi laa du denc. ñoom dafa mel ni dañoo am ay. tuub man mën man mënuma dara. man taalibe la mel ni ñëpp. est may comprendre nga de mais nañu bay ay fen yoo xamante ne moom la doxalee dëkk euh, pare euh, maa ngi lay déglu waaw. <laughs> non nañu bay waxuma. keneen ñi nga xamante ne ni ay sëriñ lañu sëriñ woo xamante ne ni ñiy dul di dajale di tromper doomu aadama yi fii nii dugg na fi génn na fi nañ ko bàyyi. parce que Sénégal xamatul kan mooy ramblukat kan mooy sax féticheur kan mooy kan ak kan xam kenn xamatu ko boo recevoir tay jii nii quatre-vingt-dix-neuf personnes par exemple génn wàll bi yëpp ñu la jar na fii def na fi dem na fii def na nangam. HMA yi comprendre nga de donc. te gisuma dara HMA yi comprendre nga de man waxuma maa mën te ñëpp ñi ma déglu fi mu toll nii waxuma maa mën de HMA yi comprendre de du question maa mën mais li ma bëgg nii fu mu toll nii ma koy wax ci sama mbokku borom xam-xam yi nii nañuy jaar ci yor bu xamante ne nii. HMA yi comprendre de liggéey bi mun na taxaw nii. parce que borom xam-xam yoo xam ne dañ lay ñaanal ne dañu lay jox délai. nee la fii fukki fan wala fii fukki fan ak ñaar sa aajo faju borom xam-xam bu taxaw ni fu mu toll nii nee na dama lay jox ni léegi léegi sa ajo faju ne ko Ibrahima Cissokho maa ngi tudd Ibrahima Cissokho sama yaay mooy Xawa Jakte sama papa mi ngi tudd eh, Moussa Cissokho sama karamko mi ngi tudd Bablen Konaté kuy wax loolu fam da dee duul duul naa waxul dëgg maa mel lii nii ci fan yi nangam yàlla kese moo ko man amul fenn amul fenn du ramblukat du féticheur du keneen nee na ci saa maa lay defar li nga gis ko day duul day fenn amul amul. waaye sëñ bi dañuy dikk suñ question piège muy nga ñëw ci ramlu bi wax ñu trois match Sénégal yi nga seet ko léegi wax ñu Sénégal. match de poule mi nu mu ciy demee. léegi léegi. Euh, d' accord baax na loolu man mi ci boppam sa question bi kontaan na ci donc euh, il faut ma wàcce ma tëddee remblo bi nii xool ko ba pare ma wax leen ci li ma mën parce que eh, macha allah tabarkala sa question boobu noonu ci Thiès laa dëkk macha allah Thiès laa dëkk mais. yor naa ay équipe yoo xamante ne maa leen def champion loolu ki kiwul kenn fii ci Thiès fii mhm. waaw jël leen ci première division defar leen ay équipe Thiès fii nii ñii nekkoon ci nawetaan bii nii est-ce que may comprendre de mhm. waaw waaw macha allah tubarkalla man dama bëgg nii fu mu toll nii seen télé bi nii boo gën a dem eh, ci kanam ak kanam incha may comprendre donc euh, wax baa donc euh, waaw. Ah, ah, ba tey mbokki internet yi yéen a ngi koy gis euh, moom Karamoko muy Ibrahima mi ngi ramlu match Sénégal yi nga xamante ni moom la war a joué ci poule yi moom lay xool nii. dafa mel ni nag xam-xam dafa tumuranke woon ba Sénégal ñu bari sax gëmatuñ ko woon loo leen wax ñu ni ah, sëriñ yi dañuy dañuy dañuy wax wala sëriñ yi dañuy nangam sàngam maamun yi dafa bari Sénégal ñu bari ñu ngi koy kaas waaye lii mu yor wax dëgg yàlla lu wér la muy ram la muy xam-xamu suuf loo xamante ni fekk na waaw waaw nee na wax moom comme ni ma leen ko wax dafa direct ba booy toog ci néegam di wax dafay bëgg ngay jaar ci digg bi mi ngi noonu ngeen koy gis muy eh, xool match Sénégal yi nu muy demee incha allah dinañ ci indil ay leeral léegi léegi léegi xam-xam boo xamante ni mi ngi ko jëlee ba Mali indi ko Sénégal wax ci yoo xamante ni ñu bëri jàng nañ ci muy ay audio def ko ay audio tas ko fi Sénégal audio génn na sax réew mi ñu bëri nag eh, buñ déggee voix bi dinañ ko xàmmee ndax jàngal na leen indirectement waaye tooguñ ci kanamam jàng waaye tamit am na ba léegi ñoo xamante ni ñu ngi fiy toog di wut si xam-xam ci moom ndax am luñ fi yaakaar am ñoo xamante ni comme ni mu ko waxee léegi dañoo mos rek yaakaar ni màndi nañ dem génn ci télé yi di ko toj di wax lu ne waaye nee na leen yàgg-yàgg dinañ dellu siwaat ndax dëgg mooy mujj mu ngi noonu ba léegi ngeen koy gis mi ngi ñaan ci suuf si ndax suuf du fen lu suuf wax rek dëgg la lu mu gis ci suuf si daf la koy wax lu suuf wax dëgg lay doon ngeen bàyyi ko xel bu baax a baax samsana vraiment faratigo farakanna ke bo junga ke mawru flamuru bo chamsa su chamsa ma ko juma to alama to te la turu son woro ka ci ka mo ka senegali équipe nationale ka coupe du ko ni senegali be gagner la ko bangi nya ko ndakoro kali senegali yɛrɛ tɛna victoire sɔrɔ o tɛ gaɲɛ laturu ko bange ɲa ko ndakɔrɔ kala ye caman dogo cɛma sɔrɔ tiɲɛ kan dogo la yi nii lay Iram Lo moom di xool match yi nu muy demee nee na nag comme ni mu ko yàggee di wax suuf si turu baayu kenn nekku ci <laughs> nee na mën nga ci gis Ibrahima sa papa tudd Ibrahima waaye du sa baay ndax tur yee daje rek daa <laughs> ramlu bi baayu kenn moomu ko yaayu kenn moomu ko xam-xam bu wér la boo xamante ni dafa wàcc pour jariñe doomu aadama yi xam-xam bi mu wàccee yàgg na te nag li muy yàgg di kaas rek mooy sénégalais yi nga xamante ni dañoo jël xam-xam def ko commerce ndax nee na commerce lu dugg mu yàqu buñ ko jëlee nee na buñ ko jëlee commercialiser ko rek def ko bëgg ko def commerce rek dafay yàqu ndax eh, njariñ li dootul bëri nee na nañ jël xam-xam bi rek jaamu ci yàlla def li ñuy def ngir yàlla faj ci soxlay doomu aadama yi ngir yàlla bu ngeen nga xamante ni fa lañ ko fekk muy bërëbam di si rece fi recevoir ay ganam di fi jaamoo yàlla maanaam liggéey yi nga xamante ni moo ngi koy def mi ngi nii fekk nañ ko ci këram depuis 2010 mi ngi Thiès ba léegi puusul randul maanaam xam-xam bi mu yoru wóolu na ko macha allah nekk nag koo xamante ni <laughs> li ñu a wax ci moom bëri na. tollu ko dëgg yi nee naa ba eh, damay wax tamit ci eh, nga xamante ne nii eh, mbokk yi di wax ci mbokk yëpp. Ousmane dafa taxaw ci néegu bàkkan Ousmane wax naa wax boo xamante ne nii. Eh, dafa solo maa ngi jégalu ci ñi nga xamante ni ñooy sama jarbaat ñoo ma seet si tey donc maa ngi jégalu bu baax Ousmane ci bàkkan Sénégal xéewal dina fi am ni ak fu bu bu ñu doon seet nii fu mu toll nii eh, ngeen xam ne nii ci coupe du monde bi nii Sénégal moomu ko. Sénégal du jël coupe du monde bi. Sénégal du jël ci coupe du monde bi ne déedéet. waaye dafa wax ne nee na Sénégal dina ko am man nekkul léegi nii fu mu toll nii. Sénégal dina mën sa jël coupe du monde mais du léegi du bii. ok du bii nii de billaahi wallaahi tallaahi du bii Sénégal du ko mës am nii nii nii nii ah, ah. boobu noonu est-ce dinaa fekk man mii di tombon saa est-ce maa ngi dund. kon dafa yàgg balaa mu ko jël. Ah, lu mooy jël coupe du monde bi fu mu toll nii moom. bu du coupe du monde bu ñëw nii bu ci teg day du boobu noonu. Mm. kon coupe bii nii ñu jëm muy Qatar 2022 bi Sénégal na ci mën na cee dindi xelam. coupe du monde bi ñuy yaakaar ni fu mu toll nii maa ngi jégalu bu baax a baax a baax. comme Sénégal est-ce que dina sori ci coupe du monde bi xel mën na koo naw. hanke parce que eh, nañu xool fii nii karamlukat bi yëpp Ousmane bu taxaw ci bakkan bii nii fii samay comprendre nga mbir boo xamante ne dina yeex samay comprendre nga mais yàgg-yàgg xewér bi dina fi dugg xewér bi maanaam li ma bëgg a wax mooy Sénégal ci compétition bi jëm muy Qatar 2022 bi est-ce que mën nañ koo séntu ci quart de finale wala demi-finale Euh, loolu noonu ak li Sénégal mënut a def ne fu mu toll uh-huh, uh-huh, mën na sori. déedéet dé mun na jëfandikoo comprendre nga de ak euh, par exemple ci li ma mën a waxee foofu noonu ci Moussa wërsëg ak néegu sëy bi foofu noonu mun na am ñaari ndam mais balaa ndam boobu noonu am ni cest à euh, dina am li nga xamante ne nii xaaral ma wax ci kaw a nii est-ce que nga de mun na am senegal mun na am li nga xamante ne nii eh, ndam la mais ndam bi ko bañ. mooy lan. mooy kenn ni c'est-à-dire bëgguñu mu dem. comprendre nga de. Mhm. mu dem. ñi nga xam ñooy tubaab yi. ah xaw ma xaw ma lan la. Mhm. est-ce que dinañ ko teg tànk. dinañ ko teg tànk. dañ koy xeex daal. dinañ ko xeex waaw kay waaw jàng foofu noonu dinañ ko xeex est-ce que nga de dinañ ko songo dinañ ko dinañ ko teg tànk waaw noonu la. kon est-ce que Sénégal du match de poule lay toogee wala. loolu dëgg dëgg dëgg dëgg eh, wóoruma mais coupe du monde bi moom. Mm-hmm. mën tan da koy gagné wala bi foofu noonu. premier mi ngi football premier match bu may boobu noonu de moom ak communication euh, foofu noonu. Mm. ñoo bokk presque benn benn kii benn talent. talant bi booy kii nii c'est-à-dire euh, euh, kii mun na la gagné wala nga gagné ko. Mm. comprendre nga de loolu mystique amul foofu noonu leneen amul foofu noonu cest dire talent sur le terrain c'est ce qui existe c'est ça seulement. ñaata victoire la Sénégal ci am ci ci coupe du monde victoire. mukk weesu ko weesuwu ko non. ay match nulam dina bëri. day commencé ci premier match foofu noonu. gën match am match nul lay doon. tey commencé di ay xas ni ay nangam nangam Ousmane mi ngi nii. Hmm? waaw mi ngi nii mi ngi nii ci bakkan ak yoon. li nga bëgg loolu laa bëgg. kon yéen ñi koy seetaan dafa leen bëgg a wax ni premier match Sénégal bi nga xam ne mi ngi koy fubal le 21 novembre à 16h contre Pays-Bas Sénégal match nul la ciy jëlee. bii dina am wala bii du am. wérante bu amee sa nii nii ba ba ba léegi nii. Hmm. ay xuloo ay xeex da ci am. ay xuloo xeex day am ci ah, ah, terrain bi ci Pays-Bas bi ah kay parce que boo wëlbatee Ousmane bi mu jox la Isa. <laughs> comme Fara waaw loolu mooy que ni boo ma dugal ma dugal la. xeex bi ci biir terrain bi la wala. ci biir terrain bi ak commandant bu match bi jeexee du set. Hmm. ci biir terrain bi dina am foofu noonu boo paree bu ñu paree nii. Hmm. problème di am. joueurs ci biir jour Sénégal yi la wala ci joueurs yi nii diggante joueurs yi Sénégal ak commandant la bi di am. Hmm? dëggantaan. incha allah deuxième match bi. deuxième match am parce que deuxième match am mi ngi a football ak Qatar bi nga xamante moom moo ko organisé. bala ngay wax deuxième match am bi ne balaa mooy génne commentaire la ci premier match bi nii fu mu toll nii ay problème nii. Hmm. balaa deuxième match bi di jox nii di fekk nii fu mu toll nii ñu ngi leen di fexe pexe. waaw kan moo leen di pexeel. ku mu war a tase. Qatar. ndax Qatar moo ko organisé. xaw ma ku mu war a tasal xaw ma ko xaw ku mu war a tasal nii. mat eh, bu gën a métti yaa ngi foofu noonu. mat tam contre Qatar moo gën a métti. ya rasulullah mi ngi foofu noonu. mais nu muy mujjee dina gagné wala. ba xam dina gagné. waaw Qatar amoo ci benn confirmation ni fu mu toll nii moo tax man leen eh, wax la wax boo xamante ne nii sa waay. Mm-hmm. ku ci mën ci xam-xam. Mm-hmm. def ko ci. est ce nga de. ku ci mën. ku mën sax yor-yor nii fu mu toll parce que bëgguma fenn nii fu mu toll parce que maa ngi Sénégal ni taji est ma comprendre bu mm-hmm. euh, wax de donc wax baa ngi foofu wax baa ngi foofu noonu premier match bi nii. Mm. li ma la di wax ne doon de. premier match bi match bi mënuñ koo dëpp Sénégal gagné mënuñ cee liggéey maanaam dëpp ko ba balaa boobu noonu ndax balaa boobu noonu diggante bi am na un mois xaw ma deux mois. du yeneen mën kii nii di ngeen yor seen micro ak seen kii nii di nii. donc staff bi moo mën a liggéey boobu noonu yéen mënul leen ko. Euh. staff bi moo war a taxaw foofu noonu pour mais li ma leen di wax ne fu mu toll nii billaahi loolu dina am ne ne ngeen xam ne nii fi ngeen jaar ne lii kii wax ne am na. incha allah comprendre nga. Mhm. mais mënoo mën nga def dara nii pour. Euh, je remercie sûrement ma propre maman Hawa Diakité Moussa Sissoko Karamɔgɔ mhm. Bablé mhm. saluer en même temps tout les bambara. loolu mënuma ci dara mënuma ci Papa Ndiaye nañuy waxtaan da ngeen def seen émission nii fu mu toll nii. Mm-hmm. loolu joxuma kenn li nga xamante ne dañuy génnee sarax sangam pour lii moo mën a am ni mm-hmm. déedéet loolu mënuma ko wax. tey bu la Sénégal seet woon maanaam ñi nga xamante ne ñoo ŋànk équipe bi bu buñ la seet woon bëggoon a liggéey ak yow pour Sénégal ci coupe du monde bi est-ce que di ko nangu. waaw dinaa ko nangu su fekkente ni mën naa ko. comprendre nga de. Mhm. su fekkente ne mën naa ko parce que bon. Eh, parce que tamit ku ay ci wàllu match nga daan nga ci liggéey. man Thiès fii nii kii kuy seetaan fii du équipe ah, navétane nii nii dama la ñoon dama jël ay équipe ñu nekkoon commandeur la ay premier kii ni koy waxati. deuxième division. waaw waaw nekk champion du Sénégal nii fi mu toll nii isa may comprendre nga de. Mhm. donc j'ai mon palmarès là man dafa man dem ma télé dem ma rajo. isa may comprendre nga. Mhm. am na ay équipe yoo xamante ne xam nañu ma Thiès Thiès man musuma génne télé dem ma rajo. Mhm. ma feneen isa donc Thiès fii nii amul ku ma fi yeb ni non non non. du question Ibrahima tamit moo tax ni eh, soxla bu ñu ko sante ni mu mu mu kii mu mu mu sotti mm-hmm. est-ce que nga de wax baa ngi foofu noonu li ma leen di wax ne ni fu mu toll nii loolu am na du day mu ko ci àdduna waaye toos waaw balaa ñoo tàggatoo nga baal ma balaa ñoo tàggatoo seet da nga daan def boo boo boo gisee loo xamante ni lu naqar la ci seet bi da koy saraxal mu génn est-ce que Sénégal coowam loolu nga xam ne war na ko def moo kon matcham bi moo pays nga koo saraxal parce que pour l'année waaw question bi c'est un peu pertinent là parce que je Sénégal maa ngi Sénégal laa mun naa ko jàppale ni fu mu toll nii ci li nga xamante ne ni waxuma la côté nii mais ñi nga xamante ne ni dinañ seetaan vidéo bi nii dinañ foog ni demuma télé de maa ngi sama biir nekk mm-hmm. comprendre nga <laughs> voilà demuma télé de mm-hmm. mais mun naa ci jàpp foofu noonu parce que Sénégal bu amee ndam ni tey jii sama ndam la. est may comprendre nga de. Sénégal bu amee ndam nii billaahi sama ndam la est ce que may comprendre nga de. Mhm. wax baa ngi foofu noonu ñu bëri ci eh, allo Dakar yaakaar na. Sénégal allo allo Sénégal. Mhm. allo ñu bëri dinañ woote foofu parce que mosuñu gis Ibrahima ci télévision. Eh, ak ñoo xamante ne maa leen jàngal fii nii fii. Mhm. fii. Mhm. maa leen jàngal. mu wane remblo bii nii bu ñuy jàkkaarloo nii. Mhm. est-ce que may na bu baax ne. wax ba nga foofu noonu donc. Euh, bi nga tàggatoo. ndax euh, di tàggatoo nii fu mu toll nii euh, li nga wax nii parce que directeur wax na ma tudd ma ko est-ce que may nga de dama bëgg gars yi ñëw xam ko. gars yi ñu xam leen sama yi comprendre nga de. Mm-hmm. ñoo ngeen yéen ngi sama kër fii nii fu doon nii. Mm-hmm. Eh, di wax lii c'est la première fois. Mm-hmm. ngeen génne à la télévision. et en plus euh, émission la comme ça mais du mën a seet ci loolu noonu. Mm. parce que monsieur directeur euh, euh, ak yow tamit Mouhamed ak yow tamit Lamine. comprendre nga. ci li ngeen def nii fu toll nii man waa cees la comprendre nga donc li ma leen di conseiller foofu noonu ba léegi li ma mën ni euh, mën na metti lu bëri ci sénégalais nii waaw su ma wax nii Sénégal dinaa jëkk coupe du monde bi nii fu mu toll nii damay fen hmm. comprendre nga de waaw Sénégal mënoo ci liggéey ndax mu jël coupe du monde bi tamit loolu liggéey boobu noonu wax dëgg yàlla mënuma ko hmm. mhm. su ma ko waxee damay fen parce que moomuñu ko. waaye balaa ñoo tàggatoo boo geesoo ginnaaw sa ginnaaw gi statut boobu noonu est-ce que mën xam mooy kan. waaw déedéet mënuma ko euh, jëm boobu noonu euh, daf may représenter ci lu bëri ba pare daf may euh, xalaat ci suma maamaat bi nga xamante ne waaw. gaañu naa mu ngi tudd Fanta nga de. ci toolam la doon ànd ak moom ne balaa man maay dem ci armée ay affaire yooyu noonu comprendre nga waa Mali sax bu ñu kiiwee nii bu may jógee foofu noonu militaire yi du ñëw di ma fekk kër gi comprendre nga bu baax de ak wéykat kuuraay yi nii nii suma mbokk yi nii donc xam naa li li mu tekki. loolu am na. jërëjëf kontaan nañ ci émission bi. waaw mi ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñu amoon nag eh, Ibrahima soxo ñu naan ko ko mu nekk fii ci Thiès kay benn dëkk ñaari gaar nekk eh, wax dëgg yàlla sëriñ bu mat sëriñ da koy bañ <laughs> waaye ñun nag ñu naan ko sëriñ. muy ramlukat di ñaankatu yàlla yor ay eh, bagages yoo xamante ni yu wóor la mu yàgg cee faj ay soxla yàgg cee jàngal ñoo xamante ni tey bu bu tuddoon ay tur ñu bari dar seen gémmiñ ne kon kii li muy wax fii la ko daan fii la ko jëlee mu ngi noonu mbokki internet Allô Sénégal ñu ngi leen di jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf